depuis décembre la déposé ci Marine Faisal, depuis décembre yobuna suis euh, Macky Sall waxi waxi gouvernement bi gis ñu di lim déposé nan la parrainage bu de rek mais j'ai pas encore eu de réponse avec le temps je suis vendredi ñaanal leen ma Mon wo sama dom sargal sama Luxembourg moy Paris. ni ko dama bëgg defal sama yaay sargal mun ko loolu dama ci jàpp ndax sa yaay sama yaay la mun ma sa yaay sama yaay la dama ci jàpp waali encouragé ko waali itam di doom ju baax waali di ku neex a jur macha allah te bi mu ko waxee bi ma gisee dafa ni ma yaay moo mun ma danaa ci jàpp ci bés bi ba nga xam ne jàpp naa ci te xam naa bu ko waxee dana ko def te xam ngeen yéen xale yi waali ku mu woo doo des gannaaw waali rek waali rek doyul bay des yàlla na ko yàlla fal cat waaw surprise daal surprise lay doon surprise daañ ko wax. waaw mais donc am nga ay du jeex. El Hadj sama doom. Eh, day ca biir. Malle mbay sama doom. ku ma xam-xam maag male mi ngi ci biir ma woo Fat bi hmm? waaw Fat Lawbe ku nekk xam ne man man man dama bëgg Fat Lawbe. àddina yëpp nga xam loolu. mbaa du du ruube. xam nga boo naqadee dara doo ruube <laughs> dafay bañ koo ko yeb mais Fatou Laobé ak a baax ak a rafet xol mais nit ñi xamuñu ko dañ naan dafa dëggal mais dafa dafa dëggu man dama bëgg Fatou Laobé dana fa teew euh, ak ñan nee nañu moom moo Dieng dana fa teew nee nañu ma ak kan euh, bari na de ah Sidi Diop dana ñëw ak kan Euh, bari na ñu ma wax bari na ñu ma wax danañ ñëw de waaw xam naa ñoom Papa Ndiaye coppet ak ñëpp ah man ku ma wër rek maa wër wuyu ndax maay seen yaay te dama yàgg ak ñoom ah Demba Gisee dana ñëw Pendoy dana ñëw ah, Abu Cubalo moom gisuma ko mais maa ngi koy woo abu cubal mi anda to mbawɗa wonde foof min dedduma e ah, jamma o an ah, neɗo bandu mm. to mbawɗa wonde foof mi anda mbeɗa ala numéro ma mi wawa nanngudema mi wawa heɓdema kono sa nani kam walla yi kam e ɗi réseau social ji ya arnawtoɗami leddi min nodduma le 21